رمضان رمضان رمضان يا حبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله suñu mbokku téléspectateur yu TFM religion ñu ngi leen di nuyu di leen siyaax di leen déwane ci ci weeru koor gu tedd gi tey jii delluwaat nañu seen beneen numéro waxtaanu koor ànd ceeg oustaz euh, Imane Touré oustaz ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Haajari ñu ngi lay fay. tey comme nuñ ko faral di defee oustaz day def tafsir tafsir yu neex lool ci xol kon nag dañuy bàyyi oustaz mu tafsir ñu déglu incha allah. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu wa sallama lana bi asal maxdari wal tuxti bi nasratin tuxti lana bi en safarin mbokki téléspectateur TFM religion ñu ngi leen di nuyu di santaar yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu di ñëw yéen seen émission bi di waxtaanu koor première partie bi ñu ciy tafsir deuxième partie bi ñu ciy ñëw ci wàllu laaj yi di ci ànd ak soxna Ajara bu ko defee ñu jiital ci nuyoo bi suñu xulafaaw yëpp ci biir réew mi ku ci ne ñu ngi dem sa kër di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di la jox cër bi la yàlla jox di sàkku ci yéen ñaan di xulafaaw yépp ci réew mi ñu ñëw ci kër gi di nuyu boroom kër gi di Youssou Ndour di ko ñaanal yàlla ak personnel bi koy jàppale yépp ci kaw biraan Ndiaga buuba ak directeur TFM religion bi di Seydou ñoom ñépp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay kon ñu ñëw rek ci im tafsir bi mu ngi noonu ñu ngi ci soratu Sohara moom lañu war a firi soratu Sohara mooy saari wéykat yi weeru ci arab mooy wëy mu ngi noon ñaar téeméeri aaya la ak ñaar fukki aaya ak juróom-ñaar saaru màkka la am na lu ci wàccee midina lu wasooraa yet ba umul xaawun loola midinatul munawwara la wàccee buñ ne saaru màkka nag mooy loo xam ne ba muy wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnagul mu ngi màkka loola la tuddee saaru màkka lépp loo xam ne fekk na mu dem midina saaru midina lañu koy tuddee bu ko defee nga ne bismillaahi maa ngi tàmbalee sama wax ci tudd turu buur arrahmaani buur buy yërëm bépp mbindeef ci àddina arrahimi yàlla muy yërëm jullit bu ko sob ci àllaaxira noonu lañ koy firee yàlla alquran ba alquran jeex saar yëpp bismillaahi rahmaani rahim la ko commencé lu dul benn saar muy baraatun min allaahi wa sol boobu rek moo nekk ci alquran te amul bismillah boobu nag li tax amul bismillah mooy dafa ñëw pour maanaam firi kóllëre te bisimilah dafay ñëw pour saxal kóllëre mu ngi noonu bu ko defee bés ma la di nekk loo xam ne lu am solo la bisimilah lu fi yàgg la moo fi njekk sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla noonu amoon na gaal gaalam ga am na lu mu ko daan dawalee secret bi rek mooy bisimilah alquran a ko wax bisimilah mujriha wa mursaa yonent yàlla noonu ba mu ooyee nitam ñu bañ yàlla ne ko liggéeyal gaal ba mu liggéeyee gaal bu ne bisimilah gaal gi taxaw gaal gi daw bu bisimilah mu taxaw. bisimilah mujriha wa mursaha kon ndeke bisimilah mën naa dawal gaal kon nag mën naa daf lu ne ci àddina yonent yàlla Suleymaan daf ko fonkoon ba ne kero ba muy bind maanaam balxis leetar ba mooy ba muy dam war a génn dem ba ci digg di escale am picc mu tudd Moussa li kooku génn gis beneen picc ànd ak moom ba Moussa Njubuli ñëwee na ko wa jixtuka min shabe in bi nabe in yaqin ini wajatu imraatu tamlikoom gis naa daal xibaar bu bu ma yéem fekk naa jigéen joo xam ne buur la suleymaan ba mu jaaree fi mu war a jaar yépp ba muy bind leetar bisimilah la wax wa innoo min suleymaan wa innoo bisimilahi rahmaani rahim allah tawlu alayhi wa tuuni muslimin kon bisimilah lu fi yàgg la bisimika allahuma sax waa maa dañ ko daan bind di moo xam ne mu baax la borom yi wax nañ ne képp koo xam ne am nga soxla bu mu a doon ci àddina nga jël basmala muy bisimilahi rahmaani rahim nga sikkar ko lu mat juróom-ñaar fukki yoon ak juróom ñaar yàlla dana faj aaju bi 787 ñu ne soxla boo ko dóor ci soxlay àddina yépp yàlla dana koy euh, faj ba nga koy liggéey nga wéetu ci place ba nga koy liggéey waxoo kenn daggoo ko dara daggoo ko nga def 787 bisimilahi rahmaani rahim yàlla dana ko faj ñëw na ci riwaay yi ñëw ci fi daaw ñu ne 12000 basmala képp ku ko liggéey maanaam sa njoon la ci safara comme ni nga xamee ne juróom-ñaar fukki laa ilaaha illa ku ko liggéey sa njoon la ci safara 12000 xul walla njoon la ci safara ñu ne douze mille bés la bokk na ci fidaaw kon loolu bismillahi rahmaani rahim lu bari ngëneel la li tax mooy dafa dajale ñetti turi yàlla allahu mu ngi ci arahmaani mu ngi ci arahimi mu ngi ci te tur wi ci ne xaraf bi ci ne rek mën nga faa dagg beneen tur kon bismillahi rahmaani rahim mu ngi noonu yàlla kaamil bi yëpp moom la ko commencé yonentu wax na ne lu am amrin fii baalin laa yabdoo fii bisimilahi foofu ab tur yonentu mu ne mbir mu am solo te commencé wu ko bisimilahi barke ba dafay mujj manqué kon buñ buggee suñu mbir di barke àddina ak àllaaxira nañ koy commencé bisimilahi rahmaani rahim moo tax mantu ñàkk ci dara yàlla mu ne taasi miim allahu alam bi muraadi noonu la ko ëpp ci borom xam-xam yi di ko firee dafa bokk ci waroful mu xata aadi yàlla moo xam lim ci namm noonu lañ koy firee am na ñu ne taa ji mu ngi junj bépp maanaam tur yàlla boo xam ne commencé na taa am na ñu ne siin gi lu commencé siin miim gi tur yàlla boo xam ne commencé na majidun wax nañ ci lu baree bari mooy ci taasim miim mu ngi noonu yonent bi wax na ne yàlla jox na ma maanaam xin miim yàlla jox na ma alif laa miim saat yàlla jox na ma tawaasim mu taxaw taxawaayu saboor kon allahu alam bi muraadi noonu lañ koy fire am na ñu koy firi baat bu ne am na lu luñ ci ram euh, maanaam ram ne moom lay firi ci borom xam-xam yi ci taasim miim bu ko defee yàlla mu ne tilkal aayaati yooyu la aaya maanaam tilkoon li ma la wax noonu ayatul kitaab bi mooy aaya alquran yi al mubiini ba bu ñu biral de li ma la wax noonu maanaam mooy aaya alquran yi ñu biral yi yàlla lu muy wax yonent bi naan ko lu ma la wax yàlla ne ko la àllaka ndaxte la yooyu yonent bi baaqiwun da ngay rey nafsaka sa bopp ala an bu ñu nekkul moom ni ne di way gëm yàlla dafa yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla daf ko yónni mu waar Quraysi waar leen côté bu nekk ne topp leen yàlla leen guddi bëccëg yonent nag loolu naqadi ko lu ñu ko ñàkk a topp yàlla ne ko déet man de dama laa jotaloo wa ma ala rasul ilal balaa yonent bi yow jotal rek la war bu rey bu ñàkk jotal itam maanaam bu ci am stress mukk wa ma ala rasul ilal balaa kon ndaw boo ko yónnee moom na joxe rek message bi buñ gëmee buñ gëmul yépp yow li la war def nga moom lay wax na moo tax mu ne ko laal la ndax te la yow baaxul da ngay rey nafsaka sa bakkan alaan yëkkoonu buñ nekkul moom ñi di way gëm la la gëmul maanaam bu leen faale bàyyi leen rek ci lu ñu nekk am na ñoo xam ne mënuñoo neex ñoo yónni maanaam ñu gëm yàlla mu ne ko inna sax bu ma sooboon nun nasir danaa wàcc alayhim ci ñoom mi na samaay ci asamaan ayatum benn kéemtaan bu ko defee ayatum niir fa sallat dana mu mujj niir ba maanaam ax naa xawum di dagg seen do doq yi xaadee nu ñuy way torox laa ñeel ko de yàlla ne ko bul forcé man forcé wu ma leen ndax bu ma neexoon bu ma leen santee dara ñu bañ ko damay ci asamaan rek damay wàcce benn niir mu dagg seen bopp yi loola lu jar taxaw la gis nga yàlla ku baax la yàlla bu ko neexoon bu la santee dara nga ne maa lànk du ko daf mu ne la wàccee sama suuf si boo wàccee suufam si ban suuf ngay dox dana di mhm. bu ko neexee itam ndax doomu aadama ni ko ni mel mooy jikkoom daanaka bu la meree rek loo yere daf koy gedd léeg-léeg nga gis ku mere nu mayeen ko yëri mu delloo ko mu mayaan ko montor mu delloo wala sax buy kër la mu ne liggéeyatu liggéeyatuma si sa kër yàlla moom boo ko meree rek bu la ne ko yow man soxlaatuma si suuf si bu ci doxati émoo ci nga ne ko sa asamaan si de bëggatuma mu tiim ma kon foo jëm xam kanaa nga dem foo xam ne suuf su du yàlla moo fa ne yàlla na dafa wax yonent bi ne ko ñii ñu ngi lay weddi waaye man ñi mënuñ maaraw bu ma neexoon léegi am lu ma wàccee ci asamaan léegi benn doj rek mu daanu seen kaw seen bopp yëpp mokk waaye jëflante wu ak ñoom noonu bàyyi leen rek ci ñu nekk ima shakiran wa ima kafuran donte gëm yàlla la yàlla tànn kon moo tax nit ki boo ko oowati mu bañ maanaam bu ko nekk di forcer bàyyi ko comme li yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne maa yaxtihim dikkalul leen min sikiri ci waar mi raxmaani tukkee ci borom muy alquran moo da seen bëde buñ sos ci wàcc dañ ko sos ci wàcc de waaye xadim la ndax melokaanu yàlla la yore mooy lim nekk baatu arab maanaam luy sos la wala wàcc ñetti wàcc yi mu wàcc waaye alquran moom xadim la ilaa kaan lu nekk nañ moo doon di dëddu anaa ci moom yàlla mu ne alxuraan heure bu ma leen ko waxee rek ñu dëddu ko gis nga dëddu ko nag li ci gën a rëy mooy duñ appliqué at yi mu ngi noonu yàlla li mu wax ci alxuraan réew mii na at yi at yi nanguñ ko def lu mu wax ci ku sàcc ku sàcc ñu dagg sa loxo ku mooy ak jigéen bu la ñeenti seede gisee ñu caaw la bu dee amoo duggoo ci sëy boo duggee ci sëy ñu lay jam ay doj ba nga génn àddina yooyu appliqué ci dara ku rey nit ñu ñu la loolu la lislaam jàngale ndax loolu dafay tax ray bi dana jeex ku xam ne ku rey nit dañ lay rey dootoo rayati waaye dara alquran daal buñ ko indee way saa sukkir laa wax du asmaasal xuloo ba lisin laa yónni bi laaxir way saa sukkir min doonim isaam yi sab siroon alquran nag leneen rek la nit ñi soxla maanaam alquran ju àndut ak àddina nit ñi soxla wuñ ko foog ñu ne danañ ci jéem a def xorom danañ ci jéem a def bës danañ ci jéem a def ak nangam pour temps alquran amul lu ko ëpp xorom mu ko am ndax lépp wax na ko waaye dafa nekk loo xam ne dëgg la ñaare lépp luy wax dëgg nitu caaxaan du ko ñeme mukk ku dëgg du ñeme dëgg mu ngi noonu dëgg daf koy déranger kon yàlla mu ne heure bu indee ay atteem teg ko ñu jël yeneen loi Napoléon la ñuy roy Karl Marx la ñuy roy ñooñu lañ jël maanaam seen bible yi ñu bën bind moo leen gënal li yàlla wax yonent bi te suñ mag ñi nekkoon ci moo taxoon woon a seexal islam mu ne fama napoliyon aw lanin wa markas bi maa ilayhim xalliyaan ka xabaala kitaabun min allaahi jalilun jalaala qadimun wa baaqin laa yaqaafu shawala mu ne Karl Marx philosophe bu mag loxoon ak ku ñuy wax Napoléon ak Lénine nga xam ne seen wax yépp ci ay fikriya lañ ko dafoon ndax ñoom philosophe yi seen wax ci xalaat la xalaat bi mooy ñoom dañoo wax ne amul source mbiri mbiri philosophe amul source de déedéet kii day xalaat li kii xalaat li ki xalaat li kii xalaat moo tax benn waaye waaye dafa ñëwoon ne ko ndax yàlla mën naa bind xeerum àttanut boroom xam-xam bi mënu koo tontu mu dem ci benn boroom xam-xam laaj ko ko mu ne ko bu la ko waaji laajati ne ko yàlla mën na lépp te ko neex def xam nga ñaar moo ci am boo yàlla mën naa bind xeer woo xam ne àttanu ko kon yàlla ndeke lu mu àttanut am na mu ngi noonu boo ne yàlla mën boo ne nit yàlla mën naa bind xeerum àttanut nga ne nga ne waaw kon yàlla ndeke lu mu àttanut am na boo ne yàlla mënu ko kon yàlla moom lu mu mëntu bind am na moo tax boo ci tontoo rek da daal mu ne ko bu la ko laajee rek ne ko yàlla mën na lépp te lu ko neex mu def ndax sa xel yi ci dañuy ñëw di di di fo ganaar ak nen bu njëkk nen ak ganaar bu njàkk wax yoo xam ne fi mu lay yóbbu rek daf lay weddiloo maanaam ndax am na benn borom xam-xam bu ko waxoon ndax yàlla mën naa bind ku gëm ku gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Tunis la dëkkoon borom xam-xam yu bari jam ko ne ne kooku li mu wax loolu nit du ko wax ndax yonent bi yàlla du bindati ku ko gëm gannaa nag yàlla du ko def rek loolu da lu jomb la ci yàlla mu koy def am na coow lu bëri ci borom xam-xam boo liira tere ñu ngi ci wax kon philosophe ku ko topp da lay sànq ku mel ni imaamul lii ñu ñoom ñu koy wax Xasaali nekkoon na ci philosophe ay at jëriñu ci dara mujj gi mu dem nekk ci wàllu tasawuf ci soufisme mu ne daal yëg naa ne mbir yi li koy defal xol yi li koy defal daal ci tasawuf rek la mën a nekk kon philosophie ñu ngi noonu moo tax mag ñi bañ ñëwee am na yuñ ci gis yoo xam ne baax na ñu koy jëfandikoo ci àddina tasax sax jeexuñ ci loolu li nga xam ne moom baaxul yépp ñu jël ko sànni ndax am na seen xalaat yoo xam ne xalaat yoo xam ne diine dana ko nangu waaye lu ci bëri daf cee nekk yoo xam ne diine nangu ko philosophe nag dafa bëri ay taarifaat moom la ñuy wax ci arab falsafa buñ koy jàng ci arab noonu lañ koy tuddee ndax nit ki lu muy dund sax mën nga ko tuddee sama philosophe kon daa alxuraan ñoom weddi nañ ko gëm ay philosophe bu doon bu ñu ko weddee gëmuñ dara waaye am na leneen luñ gëm ay Roma ay Napoléon ay Karl Marx te nekkuñ ci dara yàlla mu ne fa sa yaxtiim xel si na leen dikkal an baaw maa kaanu maanaam xibaar leen nga xam ne yestasion dinañ weddi bii ci moom gis nga aay bi waa màkk la doon waxat waaye waa àddina dañ ciy duggaale ndax alxuraan ñépp lay waxat képp kuy weddi rek yàlla mu ne ñi ngiy weddi waaye ñi jiitu woon nekkoon ci jamono yu njëkk ya bu ab yonent ñëwaan ñu am lu luñ ci xool naan dafa am lu ñu war a defaraat wala mbir mi tëddeewul nii yàlla mu ne danaa leen nettali li xewoon bu njëkk yàlla mu ne awalam yaraw kanaa dañoo xoolul ilal addi jëm ci suuf kan an bat naa bari nañ bañ saxalee fiyaa ci suuf min kulli sawjin bépp tukkee ci bépp xeet karimin bay aji rafet de yàlla mu ne man de def naa kéemtaam yu bëri si suuf def naa fi xeeti meññit yoo xam ne yu bëri la sinwaanun wa xayri sinwaan comme ni mu ko waxee ci aay bi loolu kéemtaan la da ngay gis maanaam lu ñuy tuddee kaani da ngay gis lu ñuy tuddee jaxatu da ngay gis lu ñuy tuddee naajo da ngay gis lu ñuy tuddee batanta yooyu yëpp benn taw moo leen di tawal kaani bu ñëwee saf kaani jaxatu kenn mësu koo lekk mu saf la maanaam kaane ak yeneen lekk yi yàlla bu mënutoon taw konoon dafay taw taw kaani taw taw yeneen yi te benn ndox rek moo leen di saxal yusqa bi maa in waahid wa nufaddilu baxdo ala baxdi fi ukulin xaal ba nga lekk ko mu saf suukar lee nga lekk ko saful loolu kon loolu kéemtaan bu mag la gis nga xaal ni mu safee ute kaani te pourtant benn ndox moo leen di roose te ci benn suuf lañuy ñuy nekk kon yàlla ku ku ku jara yéema te kenn du saxal yàlla rek moo mën a saxal nit xam-xamam lu mu bëri bari saxal manu ko moom daal lim man ji bàyyi fa ni muy def ba sax comme nit nit di def ba màgg kenn manu laa wax ne diw nii lay màgg kenn mënu ko nit nit di màggee noonu la nit di saxale da ngay gis nit rek léeg-léeg nga gis ko muy màgg léeg-léeg nga gis ko si kiñ bi di génn léeg-léeg nga gis ko karaw gi xamoo sax karaw gi fu muy jógee xamoo ndax ci biir bopp bala wala day toore sax ci kaw ndax bopp nit boo xaram doo gis karaw comme karaw gi fu muy jógee kenn xamul mu ngi noonu kon yàlla daal moom rek a kiimaane yàlla mu ne inna fi saalika nekk na ci loolu laayatu kéemtaan waaye wamaakaana nekkul ak saroom gën a bëri ci nit ñi moom ngi ne digg oy gëm di saxal ci suuf gàncax yépp te bokkuñ duñ bokk cafka te benn ndox la benn suuf la yàlla mu ne loolu kéemtaan gu mag la waaye li gën a bëri ci nit ñi maanaam duñ waaru mukk ci kéemtaan nit ñi daal liñ mën a waaru mooy tubaab tubaab rek kon bu seet loolu ngay dégg bi moo gën moo garaaw xoolal li appel vidéo bi ki nekk fii ki nekk fii te pourtant yàlla daf na lu gën a garaaw waaye seen mbir yépp ñu ngi koy waaru ci mbiri tubaab bàyyi mbir yàlla da tubaab bi ku ko jox loolu xel moom mooy yàlla yàlla mu ne wa inna rabbaka naka sa borom la huwa moom asiisun mooy aji not ci nguuram mooy aji yëram yàlla mu ne yonent bi sa borom moo not ci nguuram moom de mooy nekk koo xam ne ku yëram yàlla ku bari yëram la yàlla nañu sotti yërmande googu mm. bu ko defee nag muy dugg ci benn xisa xisa yonent yàlla Muusa nga xam ne wax nañ ne yonent wax ne ne kaada quraanu an yakoonu musawiyan maanaam alquran tuut lépp nekk di xisa yonent yàlla Moussa ndax buur bu mu dajatoon muy firaw na di buur boo xam ne bu kàccoor loxoon waaye lu mu doon bon bon firaw na dafa amoon xel te yàlla dafa bëgg ko am xel moo tax Namrud turam doo ko gis ci alquran ndax xel mi dafa gàttoon daf la woon firaw na nag dafa bonoon waaye dafa boloon ak xel mu rëy yàlla mu ne na nga fàttali maanaam nit ñi yonent yàlla Moussa ak firaw na isnaada ba mu ooyee ko maanaam sa borom an naka luy mbir tey mbir at yi na nga ñëwee xaw ma niñ saali mi ne ñëwee way tooñ de ma tënkal la xisa bi pour nga mën koo xam yonent yàlla musa firaw na daan def dafa mas a seetlu nguur gu mag la yore dictateur loolu yàggul na ci nguur comme président Afrique rek buggee nguur nga xam ne ku ci toog da ngay lànk doo ci jóg du ñëpp nag waaye am na ñoo xam ñu bëri ci président yi yi dañoo lank ne duñ jóg seen nguur yi ba li fa xew ci réew yi xew fa gis nañ ko ci réew yu bëri jarul tudd léegi nag firaw na seetlu ñu ne ko yow daal sa nguur gi dana jeex ku koy jeexal ci gi ban Israël lay jóge ko mu ne loolu yomb na ndax ñi maay seen kilifa góor lay ne mu ne ku juddu nekk góor mu rey na di def at mu jot ku juddu nekk góor rek mu rey la kooku moo beew jël liir bu góor di ko ñu dañuy ñëw ci moom ne yow li ngay def ëpp na ndax nit ñaa ngi màggat boo reyee góor ñi ku lay liggéeyal mu ne léegi damay rey at jël at di bàyyi jigéen ñi léegi nag ku ëmb rek mu boole la ak benn sage-femme yonent yàlla musaa yaayam ëmb ko mboole ko sage-femme mu ëmb ba nekk ci matu yonent yàlla Moussa yaayam dugg ci biir ba muy am doom rek waa waaja di egsi ba muy egsi rek Moussa judd na yàlla ne ko jëlal sa doom ñi nga sànni ko mu sànni ko ndeke fi mu ko sànni pour mburu alxuraan nañu ko wax ba mu ko sànni yëgut mm, kii ku ko toppoon ne ko ana li nga ëmboon mu ne ko amuma doom mu wisit ko fu nekk gis comme jigéen bu amul doom ndax jigéen bu amee doom danañ xam mandarga yoo xam ne am na doom gis léppam woow mu xam ne kii mu jaaxal ko daal waa ji dem mu tourné gis ndeke Moussa mu ngi ko sànni ci pour bi léegi mu jël Moussa ba ko jëlee yàlla ne ko nag mënoo mucc ci dëkk bi ndax Firawna moom mooy buur bi te dana ut ay surveillance ñuy seet sa doom ji pour rey ko léegi da ngay defar lu waxande waxande gaal nga sànni ko ci géej gi maire bi dem ci benn waaye ne ko defaral ma gaal waxande waa ji ne ko loo koy defee mu ne ko daal sama doom ji laa bugg sànni ko foo xam ne du dee ci géej gi borom moom moo koy digal ba mu ko waxee rek waa ji ne ko xaar mu ñëw ku mën a fen la waa ji daw jëmale Firawna ne ko am na lu xew daf ko bugg a am na koo xam ne dafa am doom mu ne da koy sànni ci géej gi ba mu àggee ne firaw na mantu wax firaw na lu xew yàlla luxal gémmiñ gi mu ne ko dóor leen xam naa kii du wax jàmm gars yi dóor ko ba muy bëgg a dee mu demaat ci yoon man a wax mu ne kii li mu bëgg dafa yomb foog mu boole ko mu demaat mantu wax firaw na ne dóor leen ba ca ñetteel ba mu ne xam naa ne yàlla buggul ma wax ko waa ji dem ñibbi waa ji ba mu demee ñibbi léegi mu defar yonent yàlla musaa yaayam dugal ko ci gaal gi sànni ko ci géej gi léegi nag firaw na fekk dafa amoon doom bu jigéen ba ko seetkat yi seetalee ne ko sa doom bi jigéen bi li koy faj mooy kii génnee ci géej gi li tam mooy faj sa doom bi mu yónni gars yi ne nañ ko seetaan gars yi gis benn euh, ki kii buy daw ci biir rek benn waxande buy daw rek ñu dindi ko rek gis ci xale ba bañ ciy gisee xale ba rek jabaram ku baax loon moo tuddoon asiyatu bokk na ci jigéen ñi gën a baax ci jigéen àddina firaw na ne kii dama koy rey kii mooy nangu sama nguur gi mu ne ko laa taxtaloo asa an yan fa na aw na taxtu sa wala dan bu ko rey mukk kii dañ koy jàppee ñoo amuñ doom bu góor firaw na xale boobu ñu jël ay yiwt itam rek defal ko xalem bi mu wér Moussa nekk fa fanweeri fanweeri at rey nit gaa yi dàqe ko mu dem Madiana ba muy ñibbi si nag ca yoonoo la ko yàlla yónni moom lay wax nii ci commencement pour nga mën koo xam naa ko yar fanweeri at mu dem Madiana am fa fukki at yonent yàlla musaa ba muy dem Madiana dafa dem ba ci benn teen fekk fa ñaari jigéen yoo xam ne dañoo beru jigéen ñi muuru ba mu baax comme ni soxna Haajara def nii rek beru ci benn place maaxat bakuma maanaam lu ngeen di daf xaalata la nasqa ata yes du reha wa abuna seexun kabirun ñun mënuñoo root lu dul ne ñii dañoo parete suñu papa dafa màggat Moussa dem wëggal leen rootal leen bañ demee Moussa nag ndeysaan mu xiif ne rabbi inni li ma ansalta ilayya min xayri faqi ndax ci pale la jóge ko koo xam ne ci pale nga nekk maanaam di di ndekki di añ di reer tey nga xëy tibam ñam sax mënoo ko am foofu la borom xam-xam yi ñëwee jëlee soxla lu mu tuute di tuute ñaan ko yàlla ndax ti yàlla musa ñaan na lu mu añee wax na rabbi inni lima ansalta ilayya min xayri faqirun kon noonu lay demee euh, euh, kii nag yonent yàlla Suhayb bu jël ko ne ko sàmmal ma fukki at ma may la kenn sama doom yi juróom-ñetti at boo ko matalee fukk moo gën inni uridu an nunkiaka ihdal matayni aatayni ala an tahjuruni samaniya hijaj kon xisa baa ngi noonu ñu daaneel aaya ba rek kon ba muy dem nag la yàlla yónni moom lay wax moo tax mu ne isnaada ba mu ooyee rabbu ko sa borom Moussa si Moussa an naka luy mbir tey mbir yàlla moo am Moussa ne ko an an naka luy mbir tey mbir ixti na nga dikkee xaw ma ni saalimi na ñuy way tooñ ñu ne ko ñan mu ne xaw ma firaw na nitu firaw na ni nag laa wax ñooñ tooñ kan la de alaa alaa ya toqoon na ñooñ dee duñ teet mukk maanaam bokkaale yàlla ñooñ dañuy mooy yàlla xaala Moussa ne rabbi yow sama borom inni naka man axaafu danaa ragal an yu kasi boo ni ñu weddi ma de bu ma fa demee de danañ ma weddi ndax falaa nekkoon dafa am nu ma fa def waaye di xuta xad na sadiri sama dënn bu ñu ma weddee maanaam man damay mer te walaa yentaliqu fasaawut lisaani sama làmmiñ te man fasaawu ma de ndax sama làmmiñ dafa am pas-pas bu si ne kon nag faarsil na nga yónni ilaa na jëm ci haaruna mu ànd ak man waloom ñeen na leen xale ci man san buñ bàkkaar maanaam san buñ njuumte dafa am lu ma fa defoon de faa xaafu ragal naa an yaqtuloon nii ñu ray ma ngir njuumte gi ma defoon kon waxal aaru na mu ànd ak man foofu la ñuy taxawee yàlla daf koy yónni yonent yàlla Moussa mu ne moom dafa ragal ñu weddi ko ndax nekkoon na fa ñu koy tëkku ne dañ koy rey ba mu ñëw Madiyana bu ko yàlla yo te moom buñ ko weddee loolu du ko mën a supporter te moom làmmiñam wi dafa dotom nañ jël mbokkam mi di aaru mu ànd ak moom kon tiraanga juñ la mayeti rek yéen si sa mbokk gis nga tiraanga ak nu bootu la mu ne da koy bokk ak mbokkam mi muy aaruna mu ngi noonu boo fi liggéey ci place gis fa place bu des ool sa mbokk mu dam boo fi tukkee bitim réew mën a yóbbu sa mbokk yóbbul sa mbokk kon nit dafay bugg mbokkam di ko dimbale kon nañu dimbalante yonent yàlla Moussa ba ko yàlla joxe ak tira tiraanga ak bootu dafa wax mbokkam mi ne na dem mu ne itam fasaawuma kon nit ki boo koy yónni ci wax na nekk koo xam ne ku fasaa la fasaa baax na de conférence kat bu fasaawu conférence bu du am njëriñ waaraatekat bu fasaaw li muy wax kenn du ko dégg waxtaankat bu fasaaw li muy wax kenn du ko dégg kon fasaa nekk na loo xam ne lu am njëriñ la mooy mën a wax nit ñi lu leer kon tafsir baa ngi noonu ñu ñëw ci deuxième partie bi rek ci laaj yi bu ñu fi ñëwaatee ñu seet Moussa nan lay àggee ci na ak fi muy mujjee ak Firawna loolu yëpp dangeen ci ànd ànd ak TFM Arabie Sow ñu ànd ak soxna Ajara macha allah ku déggul tafsir bi imam Touré. Mhm. wax ni léegi xel yëpp day dem di dellu siwaat ni que yàlla subhanahu wa taala borom yërmande la macha allah yàlla na nu yàlla yërëm te def li gën si ñëpp si doomu doomu aadama yëpp incha allah oustaz dañuy dellu dañuy ñëw si laaj yi mhm. euh, mbokk mi dafay laaj da ngay ubbi léegi si tafsir bi mhm. yaa ngi wax njëriñu bisimillahi rahmaani rahim mhm. naam kat ñi koy def bëri na lool xamuñu nag lu muy tekki bëgg nañ ndax si lekk si naan lépp yàlla mm-hmm. subhaanahu wa mm-hmm. mm, euh, sopp na ci wala dagal na na ci nga wax bisimilahi rahmaani rahim mm-hmm. kon dañuy ñaan rek oustaz euh, nga tekkil ñu wala firil ñu lan mooy kàddu bisimilahi rahmaani rahim waaw bisimilahi rahmaani rahim koy tuddee basmala turu yàlla la ñetti turu moo ci nekk allahu turu la rahmaani la rahimi turu diine nag wax na ne lépp looy def na nga wax bisimilahi rahmaani rahim booy lekk na nga ko wax booy naan na nga ko wax booy daloo yére na ko wax booy sumi yére na ko wax booy dugg ci oto na ko wax booy génn na ko wax lépp loo ko jiital maanaam nattu yàlla mën na laa musal ba nattu di ci am muy bés ma la yonentu moo wax ne am amrin si baalin laa yebdoo fii bisimilahi fa huwa abtalun wa fi riwaayatin fa huwa aqtaun wa fi riwaayatin fa huwa ajisamun yonentu mu ne bépp mbir bu am solo te commencé ko bisim commencé wuñ ko bisimilahi barke bi ci yàqu mm. bu dee nag lu mel ni da ngay rendi moom bisimilah ngay wax waaye doo wax rahmaani rahim am na nag place yu ñu ko dul wax lu mel ni kuy dugg ci douche toilette moom du wax bisimilah dafay wax ne allahuma inni a'uuzu bika minal xubsi wal xabaa'is maa ngi muslu yàlla ci saytaane bu góor ak bu jigéen lu mel ni kuy ànd ak soxnaam dafay wax ba pare wax ne allahuma jëndim naa wa jënd bi saytaane maa rasaxnaa léeg-léeg bisimilah dafay ànd ak ay ñaar waaye bu dee ci rendi la rahmaani rahim du ci bokk ndax rahmaani mooy kuy yaram la te rendi foofu du place su yërmande lu fi ñu ko dul waxee nag ci borom xam-xam yi mooy kuy sàcc kuy sàcc moom kenn waxaloo ko bisimilah. kuy njaalo bu mu wax bisimilah. kuy détourné alal nit bu mu wax bisimilah bu dul loolu fexlul xayraat yépp boo koy def waxal bisimilah bu dee douze la nag. Mm-hmm. allahumma inni onze bi ka nel xub si wal xabaayis ngay wax lu bari njëriñ la. Mm-hmm. Mm-hmm. kon nag bisimilah rahmaani rahim des toujours ci laajte koor gi. Euh, mbokk mi nag mu ngi laajte. ndax sekk ak sa jabar ci bëccëgul koor. araam na ay lan la ci yàlla subhaanahu wa wax. waaw set ak sa soxna ci jamono koor fenn rek la daganee ci charia. Mm-hmm. mooy nit koo xam ne dafa tukki boo demee ci téere yi ñu koy jàngale te ku tukki fa man kaana minkum maridan aw alaa safarin fa iddatu min ayaamin uxar mm-hmm. ba mu tukkee bis boobu ooru ko mu ñibbisi fekk soxnaam set ci deretu reegal mm-hmm. sangu ba pare walla amoon doom deretam dagg mu sangu ba pare li des ca bis ba bu fa nit àndoog soxnaam du am bàkkaar bunt boobu rek lañ gis ci feq ne nit mën na ci ànd ak jabaram ci koor te du ci am bàkkaar ci bëccëg ba lu dul lool rek boo àndee ak say soxna ci koor da ngay am bàkkaar bu rëy gis nga sax bu njëkk ci njëlbeenu lislaam yàlla dafa teroon ànd ak sa soxna ci bëccëgu koor tere guddi gi mm-hmm. léegi nag bañ demee benn saaba ñëw ba benn guddi rek mu soxla soxnaam rek ànd ak moom mu ñëw ci yonent bi ne ko musiba am na dem ànd naa ak sama soxna rek aaya bi wàcc ne uhilla lakum laylata siyaam rafas ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna yàlla mu ne léegi dagal nan na ci yéen guddi koor ngeen di ànd ak seen soxna yi bëccëg bi nag ngeen di oor mhm. bu dul loolu moom amul benn bunt buntu boobu la daal ku tukki ba ñëw fekk sa soxna set te sax soxna si bu setee na fekk mu sangu ndax bu setee te sangu du ànd ak soxna buntu boobu daal lañ gis ci chariatul islamiya mu ngi ci téere comme nañ ko xamee oustaz mhm. yàlla subhanahu wa taala du fay benn léegi nag dañuy laaj rek. Mhm. Euh, ki nga xam ne. Mhm. day day bàyyi ba nit ki woor. Mhm. doom moromu jullitam woor suba ba ngoon. nga xam ne amul lu mu ndogee. lu mu daggee kooram. mu jël li nga xam ne mooy euh, euh, tàndarma. ak li nga xam ne mooy lekk pour jox ko moromam jullit boobu pour mu dagg kooram. kooku yàlla mu borom lan la ko mën a fayee. waa jërëjëf koor de paramoson la ci paramoson yi. yàlla dafay wax ne man jaa bi asana fa loo asaru am saaliha ku def benn ma fay la fukk. yonentu wax na ci hadiis ne koor ku ci def benn juróom-ñaar fukk lay taxawee fa man addaa farida kaana ka man addaa sabina farida ku dafa def benn farata dafay taxaw taxawaay juróom-ñaar fukk ku fa def naafi la ñu jox la ko farata yonentu mu ne asawmu mu lil na gis nga tàndarma boobu ngay jël di ko jox nit ci koor wala suukar ba wala meew loolu pakk lay dox sa diggante ak safara mm. maanaam boo waroon a dugg safara da ngay gis benn barrage bu fa nekk waaw lii lan la ñu ne la li nga jëloon jox ko nit ki ci koor mm-hmm. mu lekk ko ci koor moom mooy pakk bi mm-hmm. asiyaamu junnatun lil muttaqina kon bu dee or nga di dogal nit loolu tiyaaba la joo xam ne ju rëy la wanaa jox nit ñam moo gën tabax junney jàkk moo ndax doomu aadama jàkk li koy dundal nit la kon dimbalante baax na waaye ci heure bi mu gën a baax mm-hmm. mooy dogal koo xam ne ko or la moo tax sax dangay gis ñu am ñi di essence man am naa tàndar ma nga am suukar ma jox la nga jox ma pour ñu bëgg a am ngëneel boobu la macha allah beneen bi daal payam aljana rek macha allah hmm. oustaz dañuy des toujours encore ci koor gi rek. ba hmm. tey hmm. <laughs> damay laajte rek ndax euh, jug faj jug xëdd. di xëdd ndax loolu farata la wala sunna. waa xëdd dañ koo sopp du farata boo ko ñàkkoon a daf doo am bàkkaar. yonent bi nag moo wax ne tazaharu fa inna fi suhoori barakatan yonent mu ne na di xëdd ndax xëdd dafay am barke. borom xam-xam yi ñu ne barke bi mooy boo ko defee dafa nga ndigalu yonent ñaareel bi tegu ci dana tax nga am kàttan noo mën a koore ñetteel bi dana tax nga mën a julli fajar ci waxtu wa mm-hmm. ndax lislaam léeg-léeg day politique ndax boo xëddee rek li gën a bëri dana mën a tax nga julli ca waxtu mm-hmm. waaye ci cofeel lay nekk ku or bu doon ne koor gi yëpp du ko xëdd du ci am benn bàkkaar waaye bu ko defee def na luñ sopp te bu koy def na ko jegeleeg salaatu gi mm-hmm. bu mu xëdd lu yàgg ñuy door salaatu fi muy bàyyee lekk ak fi muy salaatu daal na nekk ay minutes yoo xam ne yu néew dañ koo sopp waaye li ci ndakaaru di def di tëgg moom ci mbedd mi loolu lor nit la te lislaam buggut kuy lor mm-hmm. ndax nit ñaa ngi amee téléphone pour nuñ eewa moom loolu jëfewul mm-hmm. waaye di tëgg fu nekk di déranger nit ñi loolu lislaam bugg ko luy sopp la daal ci diine macha allah mm-hmm. oustaz ñu ngi lay jaajëfal suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah ci beneen émission waxtaanu koor macha allah jërëjëf soxna Hajara ci laaj yi am solo yi kon émission baa ngi noonu nii lay demee waxtaanu koor ñuy gërëmaat rek borom kër gi Youssou Ndour di ko ñaanal yàlla ak personnel bi topp ci kawam yëpp Birane Ndour mm-hmm. ak Seydou directeur bi TFM Religion ak ji équipe production bi yëpp Adja Ngañ Siré Adji Mawa Cissé suñu caméraman xaali ak Bouba mm-hmm. madame Gissé mu nekk ci résiba ba Ibrahima monteur allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam